du meilleur buteur africain meilleur buteur sénégalais plutôt en activité en Europe la non de Mbaye Diagne mhm. est-ce que mën nga ko comprendre tey sachant que nos joueurs tey xoolee sur le plan performance Mbaye Diagne war nañu ko convoqué mais man j'ai ça je l'ai dit depuis longtemps depuis après seeni Coupe d'Afrique 2019 bi man ba après ñiy dem man je me suis dit am am na ñu ma xaw si ay organes de presse ma ne leen Mbaye Diagne Aliou dootu ko convoqué bu mukk en équipe nationale parce que euh, malheureusement il fait de très bonnes choses en en, en club c'est un buteur. Mm -hmm. c'est un buteur c'est un joueur de surface mais malheureusement la façon bu Sénégal di jouer le Sénégal n'a pas besoin d'un joueur de surface. le Sénégal a besoin euh, d'un joueur comme Boulaye genre joueur yooyu euh, la Aliou soxla genre profil yooyu mhm. tey mbay Diagne c'est un joueur voilà qui décroche qui participe au jeu malheureusement Mbaye Diagne amul amul qualité yooyu et que tey jii nii suñu xoolee sur le plan performance moom mooy il a sa place en équipe nationale parce qu'il est il est le meilleur buteur sénégalais en activité actuellement mais le coach à ses raisons le coach moom mooy def ay choix moom moo xam lan la soxla exactement yan critère la la kii ban profil de de de la soxla bu fekkee ni que Mbaye Diagne du dugg si biir projet de jeu am soxlawu ko su ko fi indee dafay nekk un joueur en plus peut-être mun na doon un joueur boo xam ne que dina dina indi problème su toogee si banc bi il va se sentir lésé mun na indi problème et que c'est loolul si le club club euh, coach yu bëri di xool ne nii di di def seen sélection et que tey jii nii c'est lui le sélection national c'est lui qui fait ses choix respectons ses choix et ñaan que beneen yoon